asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen jàmb jàmm ëtub tasum xibaar yëpp nekk tey jii ci dëcc ginnaaw génnu àddina ñett ci ñi nga xam ne daal ñoom ñoo doon leen liggéeyee ca groupe leeral ñàkk seen bakkan ci ab accident goo xam ne ma nga xewe woon fële nga xam ne de moom mooy ca Tambacounda autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne équipe boobu nga xam ne moom la waa leeral yónni woon ngir ñu bokk ci tukki nemmeeku bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di amal foofu nga xam ne de moom mooy ca Kédougou ñoom dañoo jóge woon nag ca Tambacounda ngir jiitu njiitu réew mi fële nga xam ne moom mooy ca Kédougou wante nag ci yoon bi rawatina nag ba ñu yeggee euh, ba ca parc Niokolo-Koba foofu la ñu daal di tase ak benn camion accident bu métti nag moom ma fa jot a am ba suñu naataango bii di am Amadou du Sy nekk ab taskatu xibaar daal di ci ñàkk bakkanam caméraman bii di Yoro du Diallo ak tamit Ousmane Ndiaye chauffeur bi ñoom it accident bi moom moo leen yóbbu suñu naataango yoo culikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ñeneen ñaar yi xam ne ñoom ñoo nekkoon ci oto bi it fu mu nekk ni daal am nañ ci ay gaañu gaañu Sud Quotidien gisee nag nag ni oto bi nga xam ne 4 x la woon moxoñee loolu day firnde rek ne accident bi dafa métti woon jolikaay bi di l'info di xamle kon ne équipe leeral bi nga xam ne dañoo bëggoon njëkk cortège présidentiel bi fa fële nga xam ne moom mooy ca Kédougou ñoom de mujjeewu ñoo yegg te am na ñett ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakken te nee nañu accident bi la ko indi moom mooy ne chauffeuru camion bi nga xam ne nag ma ngay liggéey ca Grand Moulin de Bamako moom dafa perdre contrôle otoom daal di jubal jëmale ko ci 4 x bi nga xam ne daal naataango yi nekkoon accident bi métti woon na ndax ci julikaay bi di l'info mi ngi ñee xamal ne sapeur pompier yu Kédougou ñoom de amoon nañu ay jafe-jafe ngir génne sax kenn ci ñett ñi nga xam ne daal ñoom ñoo ci ñàkkoon seen bakken njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom sax mujjee naa dem ba ca bërëb ba nga xam ne fa la accident bi amee daal di jébbal njaalam ba pare nag dakkal bépp xumbute bi nga xam ne dañu ko naroon a amal keroog ba ñuy ñu des ak njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ndax xamal ne moom dina am ay jafe-jafe yu tar ci wàllu investiture euh, ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu euh, dëgmal ndaxte Macky Sall samedi bi ñu weesu ma nga woon fële nga xam ne moom mooy ca Kaffrine foofu nag la daal di fësale ay kàddoom wax ne ci wàllu élection locale yi ñu dëgmal bu yeboo ñoo xam daal ne benn list bu benn bokk yaakaar moo ci fas yéene am wante kàddu yooyu nag taxul ba ñu nemmeeku tekk tekkaaral ci yenn ci ay gox yoo xam ne daal xëccoo bu tar moom moo am ci ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk euh, ci majorité présidentielle colikaay bi di Sud Quotidien di ñu xamal ne li ni mel moom moo xew fii ci biir Dakar ndaxte ku ci mel ni Amadou Ba ak Diouf Sarr ña ngay xëccoo li ni mel it moom moo xew uh, ca Kaffrine ak kii di Abdoulaye Sow ak Abdoulaye uh, Wilane uh, ci diwaanu Ndar moom Mansour Faye ak Mary Teuw Niane ñoom ñoo fay xëccoo fa li nga xam ne moom mooy ca Podor Aïssata Tall Sall ak Racine Sy ku ci nekk daal dinay samp ndëndëm colikaay bii di Sud Quotidien nekkoon fi mu nekk nii njiitu réew mi moom dong moom rek de moom moo mën a indi tekk tekkaaral ko ci gi ni mel ndaxte dafa mel ni daal ne xëccoo gu tar a lu élection yooyu ginnaaw ba ñu jëndee avion présidentiel bi mu am ab coow lu ne kur fu mu nekk ni nag beneen coow ma ngay tàmbaliwaat di juddu ci internet ndaxte daal di dañu fay fësal benn bato bu ñuy wax ne yeeyaay njiitu réewum Sénégal di Macky Sall euh, moom moo ko daal di jënd ngir daal di mën di doxantu ci géej gi colikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ne xibaar yooyu dara nekku ci dëgg tey ji sax du xamal nag dëggantaan lan moo xew ak bato boobu nga xam ne atum 2017 sax la ñu ko daal jënd ñu ngi ko jëndee lu weesu juróomi milliards ci suñu koppar moom moo fi wuutu la signaar xibaar bi nga xam ne daal moom moo doon tax ñu jóge fii ci biir Dakar dem ba fa li nga xam ne moom mooy ca uh, Gorée culikaay bi di Le Soleil nañu laa signaar fu mu nekk nii dafa màgget ndaxte weesu na ñeent fukki at rax ci sax dafa am ay jafe nag ci wàllu uh, technique li ni mel sax feeñoon na ci atum 2013 ba Barack Obama ñëwee fii ci biir Sénégal waroon dem ba fa li nga xam ne nag moom mooy ca uh, Gorée loolu moom moo tax ba ñu daal di utaat nag bu bees tàq daal di koy tuddee le Fatick culikaay bi di Le Soleil mi ngi ñaxamal ne du bato boo xam ne nag Macky Sall daf dugg dugg di ci euh, wëndaalu wala bokk di ci doxantu bateau boo xam ne dañu koy utiliser ngir def traverser Dakar Gorée rax ci dolli sax ay kàngam lañ ci faral di yéegal ñu jukki jëmale ko ci mbirum Boy Djiné ndaxte tey jii julikaay bi di libération mi ngi ñuy xamal ne moom ginnaaw ba mu rëccee ca kaso camp pénal gu ñu ko tëjoon daal di ne ñëwaat ci lan moo waral sax mu def li ni mel ndaxte Boy Djiné daal ne xam ne ne moom sonn na ci lettre yoo xam ne daf koy bind jëmale ko ci autorité judiciaire yi te ñooñu duñ koy faral di tontu dañu koy ñàkkal fayda moom daal di ne xam leen ne tàmbali woon na fi benn grève de la faim wante loolu taxul woon mu antu kon kay tey jii rëcc gi mu rëcc nii day wane daal ne moom jot na ngir ñu daal di liñatu ay mbiram ñu jeexalee ko ak wàllu lamba ga culikay bii di sunu lamba tey jii nag di ñëwaat ci ab tontu goo xam ne ba mbax jee tontu na ko kii di Balla Gaye de mu koy xamal ne ci combat bi nga xam ne daal moom la ñu dëgmal kii di Balla Gaye numéro 2 terew kaa nelaw ndaxte moom gëm na ne daal ne combat boobu du yàgg te dina am ndam kaw kii di Balla Gaye Balla Gaye numéro 2 que mu bëgg du keneen ku dul Eumeu Sène rax ci tamit pare na ngir jàkkaarloo ak ki nar a euh, gagné ci a am ci Ama Baldé ak Modou li ngeen a fës ci biir yi ñu leen di ñaanal njeexte lu Mesdames et messieurs, bonjour. La presse sénégalaise endeuillée après l'accident mortel qui a coûté la vie à trois envoyés spéciaux du groupe Leral. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'il s'agit de l'équipe de reportage du site leral.net dont trois collaborateurs ont perdu la vie et deux autres blessés dans une collision entre leur véhicule et un camion. Ces derniers, dépêchés pour la couverture médiatique de la tournée économique du président à Macky Sall, n'arriveront finalement pas à Kédougou. Abou Mamadou Sy, journaliste, Yoro Mamadou Diallo, et Ousmane Diaye, chauffeur, font partie des victimes et il n'y a eu que deux survivants. La voiture de l'équipe de reportage qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda camions. Euh, l'état de la voiture de type 4 de l'équipe de l'ERL informe à sur l'ampleur de la collision euh, qui n'a laissé aucune chance de survie aux victimes. Dans le journal L'Info, nos confrères nous parlent aussi de cette tournée macabre avec la mort de trois employés de l'ERL dans un terrible accident. Nos confrères nous indiquent que l'équipe voulant prendre de l'avance sur le cortège présidentiel en le précédant à Kédougou a finalement péri en ils étaient entrés en collision avec un camion après que le chauffeur en provenance du Mali et appartenant au Grand Moulin de Bamako a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé tout droit sur eux. La violence du choc a été telle que les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kédougou ont eu du mal à extraire un des corps sans vie des décombres. Le chef de l'État, Macky qui s'est rendu sur les lieux du drame, a présenté ses condoléances l'inauguration de l'hôpital Ahmad Dansokho. Et nous restons avec le chef de l'État Macky Sall, c'est pour signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que s'achemine vers des investitures musclées concernant les élections locales au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le chef de l'État Macky était monté au créneau samedi dernier pour siffler la fin des guéguerres que se livrent des responsables de sa majorité depuis l'annonce de la date des prochaines a précisé 2022 se feront dans le cadre de Benno Bokuyakar. Mais malgré cet appel à l'unité et à l'ordre brandi par Macky à Kafrine, la coalition présidentielle risque cependant d'aller au local dans une certaine dispersion. Et pour cause, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, les oppositions frontales sont légion entre membres de Benno dans les diverses collectivités. C'est le cas à Dakar, Saint-Louis et Kafrine. Nos confrères nous indiquent ici à Dakar, les à Kafrine, Abdoulaye Sow et Abdoulaye Wilane, à Saint-Louis, Marie Tounian et Mansour Faye, à Podor, Racine Si et Aïssata Talsal. Au final donc, l'arbitrage pour les investitures pourrait être un véritable défi pour Macky quoiqu'il ait appelé tous ses partisans à rester à l'écoute de ses choix, lesquels vont nécessairement faire des, des frustrés. Après l'avion présidentiel, il a été beaucoup question sur Internet d'un navire de plaisance que le chef de l'État Sall aurait acheté avec les deniers euh, publics rien que pour se faire plaisir. Et nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent tout bonnement et simplement de diffusion de fausses nouvelles et aujourd'hui, ils nous livrent la bonne information à ce sujet. Et retenons donc avec nos confrères du quotidien euh, Le Soleil que le navire a été acheté en juillet 2017 à 5,85 milliards euh, de francs CFA. Il remplace la Signare vieille de plus de 40 ans pour la traversée dakar navire baptisé euh, le Fatick, nous disent nos confrères euh, du journal Le Soleil, sert à transporter les autorités sénégalaises ainsi que les hôtes de marque de Dakar à l'île de Gorée dans les conditions standards modernes de sécurité. Et dans le passé, la Signare a transporté d'éminentes personnalités comme les présidents Nelson Mandela, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama et le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui et demain, Fatick fera de même. Et nous parlons décédé de la prison de camp pénal. Et aujourd'hui, nos confrères reviennent sur cette affaire et nous indiquent la sûreté urbaine investit les lieux et plusieurs agents de l'administration pénitentiaire sont convoqués. Et Boydine, qui s'est prononcé sur son évasion, déclare que pour le moment, il est calme et il a des droits comme les autres détenus. Et nous terminons par le sport. À la une du quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent euh, de ce premier expérimenter le système 4-4-2 et le 3-5-2. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.